moo fas yéene def lancement de carrière tey waaye lu jiitu loolu dafa am ay kuréel wala boog ay daayira yoo xamante ni ñoo nekk ci Kër Moussa ak li ko wër ku ci nekk ñëw fi daje ku ci nekk du fas yéene laa jox donte dix minutes la nga barkeelu ko bu ko defee moom mu mën a ñëw bi ñu ñëw fekk nañ fi daayira Sam ñu yëkkati fi lu neex mu mënuñu leen war a tàgg waa daayira Mafatihul Jinaan ñoom itam barkeelu ci kuréel gu am solo ci njiitalu Mouhamed ak ña mu àndal waa daayira nañ leen mun a bu sëriñ ji li mun a ñoom ñoo fi jóge léegi balaa ñoo jox yeneen kuréel yi fi teew parce que su ma juumul ñu may wax ni am na kuréel yu jóge Daaru Salaam ak yu ni mel ñu ngi fi ak mboolem mu daayira rek boo xamante ne rot si nga ci bés bi balaa ñu lay jox dañoo bëgg a jox borom bés bi moom mu dugg si comme dañoo nekk ci registre xaside yi moom itam mu barkeelu moom borom bés bi dafa rajas buñ ca jógee incha allah ñu joxaat leen kàddu gi yéen itam ngeen barkeelu ci bésam mu nekk lancement de carrière bu bay daam mu nekk groupe boo xamante ni groupe bu bees la mu am ci ndigal njëkk ci ndigal yi mu jëlee ko ci wëyuram bu góor am ndigal ci sëriñ Ousmane Ñing mu nekk jëwriñu mu ci tubaa Kër Moussa waaye am digal itam ci ki nga xamante nii mooy sëriñ Jiili mun a Mbàkke yaakaar naa ne borom bés bi mooy dugg si noonu muy bàyyi daam xasida mu ànd ak groupe bu am solo muy groupe Touba Ndigal bu Kër Moussa kon boog bàyyi daam bu wootee ñu wuyu si ko nee na dafa bëgg def rajo sam comme dañoo toll ci li nga xamante ni nii mooy xasida yi nee naa ni daayira yi ci ne fu nekk li ñu jógee ñëw ngir yàlla ak bésam mooy itam mooy waral mu ñëw nii def rajasam ndax ci cadre xasida yi lañ toll te ku xam sëñ Mountakha nekk xalif général des mourides bu ñu toll ci weer wii dañuy def ñu tuddee la purification du ramadan yaakaar naa loolu ñu wax sëriñ bi sax su mu jumul joxe na digal ne nañu soppi tur wi su mu jumul mooy naanul bàyyi wi baat bi moo may xaw a tëngeen baal ma ko waaye daal mu ngi noonu xam naa incha allah ci kanam tur nañ leen ko digtal muy soppite tur bi nga xamante ni sëriñ bi joxe na ko ñu jële ko ci vivification du ramadan ak turam yi sell yooyu mu ko waxee incha allah ñoom Moussa ñu ngi fi nañu ci dimbali kon boog dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ni moo waral woote bi muy Baye Dame Xasida ginnaaw bi ñu amee ndigal moom ak groupe bi mu taxawal fa seen def lancement de carrière am kon boog jox Baye Dame mu def rajas incha allahu taala bu ñu paree jox yeneen daayira yi ñoom itam ñu barkeelu bay daal